Baye Mor. Euh, ku ko ku ko dégg. sa xel dina dem ci bu ñuy wax ci wàllum xasida yi. da dem ci jàllabatu maraaxib. Hmm. waaye sa xel na dem ci si waaw mu mel ni daf cee amoon cër lool. Hmm. nga xam ne daanaka ku xam ku xam xasida rek. Hmm. wala xam Baye Mor. Euh, sa xel mu dem ci loolu. léegi foofu boo ñu ci mënoon indil dara la ci diggante moom ak xasida yi. waaw. ma la wax ci maraaxib de moom xam nga daraa ngi ci. xam nga wax di jàng muraaxib junni yoon ba noppi. ñu yëkkati la juróom-ñaari mètre meneen mbir la nag ah meneen mbir la kon kon mu mom, moom ah, waaw waxal salli wa sallim man na yaa fataahu ala lazi sumaatoo miftaahu wa alihi wa sabi wa turini ma shihtu fi daarini duna darani ah, waaw mu wax ni nag bu ko jàngee ba yegg fa bayit yooyu baamu luma laaj sama borom mu def ko ben wër mu raxat bi nga nga tudd hmm. ni hmm. jang na ko fi wër junni yoon bobo hmm. bobo jang jang jàng bi mu daal ku ko wax sax ko ko wax nit ku ko wax nit da nga da nga nga ànd ko ko ko bëgg a bo jang na ko ci bërëb junni yoon ne yëkkati nañ ma juróom ñaari mètre ci kaw ci ah, kon kon kon ding ci dara de yëkkati nañ ko juróom ñaari mètre ci kaw mu nik laal suuf mais foofa nag mm-hmm. a boo ma dellusee. la la la laataam laataam liwaat jëlee wuti mu rafet. maanaam mm-hmm. damay topp gëstu mag ñi li ma gën a neex ci seen liggéey mooy gëstu mag ñi ngeen di def loolu rek bëri naa ci mbokk taalibe bi nga xam ne liñ ci liñ ci abonné kenn xamul nu mu toll. waaye damay gën a soññaat di soññaat sama bokk bépp mbokk taalibe nga xam te ne yaa ngi dégg sa yaa ngi dégg sama kàddu man Assane Sow maanaam nga abonné ci Mbectemi TV ndax ndax rek li tax nga war cee abonné rek mooy Mbectemi rek daa ndax mboolem ku toog ci xalifa gi rek mbégte mi lay ba ci si suñ Muntaxa Albachir mi nga xamante ne ñëw na gën ñoo woo ci nga xamante ne mooy mbég mi